ñëwoon ci daara bi di daara Xaadim euh, ndax chaque année léegi war naa def 16 euh, ans ñun lañ koy parrainer suñ euh, taral fi xale yi jàppale ci indi ay téere jàppale leen parce que fii daara bu mag xam ne ay borom xam-xam dañ fi jógee fii li fi génne ci muy ay université ak loolu dafa bari te loolu kóllëre gi ma am ak oustaz Diallo Ndiaye di papay Ousseynou lu yàgg la bi ñuy defee daara ba léegi musu koo jox keneen musu koo pare ne keneen chaque année maay ñëw di ci sant yàlla bu baax a baax a baax ndax diine eh, moo yore réew tey jii ñun ñu ngi yëngu ci politique mais bu ñu euh, defarul jikko yi politique bi mënul baax te moom dama ànd ak moom ci ànd dëgg li ma ko wax mooy may wax dëgg fu ma nar a jëm juum mu wax ma ko tey nag ñu ñëw fii pour euh, màggal xale yi féliciter leen féliciter ko moom mais féliciter Ousseynou et gën a sargal xale yi pour xale yi gën a gën a jàng ñu indi leen ay téere alxuraan yoo xam ne ñëpp ci jàpp képp ku ma ko wax rek di samay xarit samay àndandoo dañuy jël seen ñaq def ci pour ñu indi pour xale yi mën a jàng te loolu ça fait 16 ans donc tey jii vraiment c'est pour euh, màggal bés bi pour wane ne euh, samay activité alxuraan da am solo ànd ak délégation bi nga gis nga xam ne c'est une grande délégation pour ñëw. sargal si ko sargal si xale yi et le leen euh, pour que ñu mën a bég pour déwén parce que chaque année day gën a màgg ñu ngi ñaan euh, euh, l'année prochaine wala année yi di ñëw ñu koy defee sax ci biir ville mu nekk jour boo xam ni jour sargal la pour les enfants du daara Xaadimu Rasul bu ONCAD boo xam ne Oustaz Diallo Ndiaye moo ko jiite mi ngi ciy liggéey liggéey bu rëy. loolu mooy suñu tànk tey vraiment di leen féliciter di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen euh, am-am yokk seen kàntan